alors d'abord ce qu'il faut dire c'est que euh, moom mooy vingt-neuvième ministre des sports et bi mooy gulet ñu tàbb ci euh, jigéen ensuite euh, boo xoolee tamit dañu teg ñaari département sport culture loisir boole ko ci benn alors ñu dénk ko ko moom sax wax na ko sànq yéen bi diis na yéen bi diis na mais je pense que bu ñu xoolee programme bi nga xamante ne moom la Diomaye président doon euh, mettre à la connaissance du monde du sport ci biir campagne bi mun nañ am yaakaar parce que c'est un programme boo xam ne am euh, un programme très ambitieux euh, te buñ ci sukkandiku je pense que ay coppite mun na am ci ci sport bi c'est vrai que ñu fi nekkoon def nañu ay jéego yu am solo mais ñëpp xam nañ ne diriger c'est continuité mooy continuité kii bu ñëwee tabax fii après keneen ñëw continuer donc euh, te aussi le fait que mu nekk une femme du sérail nekk euh, inspectrice de la jeunesse de sport génnee INSEPS euh, nekk juriste donc et cetera loolu yëpp bu ñu ko cumulé ak le fait que aussi mu xam bu baax département boo xam ne mun ñun moo ñu concerné mooy sport je pense que mun nañu am yaakaar ci wàllu infrastructure ci wàllu charte du sport maanaam naka lañ def ba indi si ay coppite parce que euh, mu ngi daté ci 1984 ensuite ci wàllu tamit euh, euh, management du sport et puis rendez bu am solo ba aussi ñu ngi koy amal euh, atum 2026 mooy JOJ Jeux olympiques de la jeunesse je pense que loolu aussi dina nekk rendez-vous boo xam ne ñu ngi ciy xaar Sénégal tant sur le plan de l'organisation que sur le plan de la participation donc mun nañu am yaakaar que ne une femme du sérail bi ñëw di ci euh, à la tête de ce département euh, dina réussir incha allah en tout cas loolu lañu koy ñaanal te loolu la ñuy xaar ci moom